chaque année niñ koy défé en fait say gambe djopso euh petit train de banlieue dafa am ben taxaway bo xamanteni da koy def pour mëna yobbu nit ñi euh tiwawone ñu def gamu ji ba pare ñu dellu siwaat euh, ren nak gamu 2019 bi euh, dispositif bi ni la tëddee donc amna 16 circulation manam fukk ak juroom ben circulation yo xamanteni dina am circulation yi na ci alxamis bi moy jeudi 7 novembre bi tombeek ak teju burdu bi donc bobu am nañu ñaari circulation ben bi 15 h benen bi 17 h ajjuma ji moy suñu nee suba le gamu amna ñetti circulation 9 h 30 15 h 17 h samedi bi nag mooy jour gàmmu ñeenti circulation dinañ am euh, diggante 10 heures ba 17 heures bu ñu gàmmoo nag ba sa ëllëg sa nga xamante ni moom moom mooy euh, dimanche bi euh, dina am juróom-ñaari circulation yoo xamante ni ñoom ñooy jugee Tiwaawan pour ñibbi si fii Dakar diggante 7 heures ak 20 heures la donc comme li ma ko waxee booy xayma rek fukk ak juróom-benn circulation la léegi nak euh, xam nga tamit euh, buñu né voyage ak train aussi il faut mu ànd ak ay njëg yu xéwale parce que petit train de banlieue si loolu lay liggéey day fexé ba askan wi ak population bi mëna a gis seen bopp ci tarif yi donc euh, pour voyager première classe 2500 ngay fay bi nga xam ne dafa am climatiseur pour voyager deuxième classe nak bi nga xamante ni moom ventilateur la am. 2000 francs ngay fay euh dafa am tamit nak liguey bo xam dañ ko def ci walu confort parce que tamit train aussi dafa ànd ak confort tey jii ay fauteuil yu bess lañ am pour que client yi mën nek à l'aise sentir bu baax voyager li nga xamante tamit moy xar kanam train bi aussi dañ ko changer comme train bi ngeen gis ni fim mu toll nii dañ ko couleur euh dañ ko peinture couleur Sénégal moy verte jaune ak rouge donc daa petit train de banlieue à chaque fois dal day taxaw pour que dal askan wi ak population bi ci événement yu mel nii mu ñu mën gis sen bop ci ci train bi waaw xam nga première classe bi dafa am climatiseur donc mom loolay grande différence première classe bi climatiseur la am deuxième classe bi ventilateur la am mais dañoo fexe ba malgré ça bu prix yi bu mu am ay différence yu bëri donc looloo tax ñu defee ko noonu. Wa en terme de sécurité aussi dañ ko jox cër moo tax travailler en collaboration ak waa gendarmerie ak waa ASP moo boo xoolee fii ci gaaru Hann ci alentour yi ak tamit ci biir train day am ay gendarme ak ay ASP pour mën a assurer sécurité non seulement environnement bi mais aussi mën a assurer sécurité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ci train bi voilà mooy bu ñu gàmmoo ba ca lay commencé à partir de 7 heures donc foofu tamit ci gaaru Hann euh, nga xamante ni moom lañ def fii Hann moom mooy am fële ci gaaru Tivaouane donc gendarmerie nekk équipage aussi bu petit train de aussi dinañ fa nekk pour daal mën a permettre euh, pèlerins yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw foofu Tivaouane ñu mën a ñibbisi fii jàmm ci Dakar Dakar waaw message bi leen lancé rek moom mooy voilà ni que ñun ñoom lañ fi nekkal boo gisee lii yëpp ñu koy def c'est parce que pour que parce que xam nañ ni tey jii di tali xat la xam nañ ni pour dem Tivaouane ak oto yi parfois day métti ak embouteillage et tout ça donc ñun dañ bëgg indi benn solution boo xamante ni day gën a noppalal client yi te xam nga Tivaouane dafa doon yoon boo xamante ni ñun dañ ko miin parce que du lundi au vendredi train bi daf fay jóge 6 heures du matin jaar Thiès ñëw fii Dakar le soir à partir de 17 heures mu jógewaat fii Dakar jaar Thiès dem Tivaouane donc dafa nekk yoon boo xamante ni dañ ko xam moo tax nag événement gàmmu aussi bu ñëwee dañuy day am beneen taxaw waay bu bees boo xamante ni moom la ñuy def pour que ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem Tiwaawoon bëgg a gàmm ñu mën leen yóbbu ci jàmm indi leen ci jàmm